على من بفعل الخير ginnaaw tukkib nemmeeku bi collectif bi ñu dippee ànd taxawu kayaar amaloon ci xalif général de murit ab délégation bu takku ñu ràññee ci ay conseillers municipaux ak ay kilifa diine yu bàyyeekoo Kayar ak li ko wër ñëw nañu ñoom itam amal seenub ziar ci xalif général des Mourides ci ndaje ma porox ndollu nañ ca ngir indi ay leeral ci coow li doxoon ci diggante collectif bi ak usine Touba protéine marine. yaakaar naa délégation bi ma lim nii ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo jóge Kayaar dëgg li nit ñi wax mu ànd ak seen métitu xol pour ñëw indil la ay leeral yoo xam ne jëmm ji du ñu gënal suñu bopp ndax suñu li ñuy wax nii bu ñu yàlla dugalee ci biir suuf dañ koy waxaat foofu document bu mën a am ci réew mi boo xam ne war na ko mën a jox doole ak kattan mu liggéey ci biir senegal am na ko te nag yaakaar naa ñi fi ñëw gënuñoo bëgg Sénégal président de la république ñi fi ñëw gënuñoo bëgg Sénégal ministre de l' environnement bi nga xam ne moom moo ko jox licence étude impact environnemental bi nga xam ne nit ñi seen nokkin mën na méngoo ak usine bi doxalinam ci biir commune bi. bu weesoo taxawaay bi nga xam ne ab entreprise daf koy am ci gox. usine Touba protéine marine sopp ay yoxoom ci ay financement jagleel ko soxna yi ngir ak jàppandal ñeel seen wàllu liggéey. conseil municipal laa ci mairie Kayar te ñun ñi dëkk kayaar doon ay jigéen ci dëkk bi nekk fa di liggéey bi Babacar jàll duggee kayaar ak léegi dañoo am kontante ci moom ndax diggante daaw ak daaw jéeg dafa jugal ñaar fukki million man maa si signé ci banque Bayax jox ko jigéeni kayaar ñu ciy liggéey ñuy liggéey di ci liggéey ba yàgg Babacar Diallo oo ma téléphone ni ma lu ma muy lu ma joxoon jigéen ñi may naa leen ko ci lu soxalit xëyum ndaw ñi kenn ci délégation bi di ci fësal ni taxawaay bu am solo la ci entreprise bi di amal la ca Kayaar. Barça Barsaq duggoon naa ci ba jot see dem demaat ca mais bi ma dellu see la ma Babacar Diallo woo mun ma dinaa la defaral gaal jëndal la moto nga jël ci ànd si ak sa njaboot continuer di liggéey toog ci réew man sama doom liggéeyu fa man liggéeyu ma fa waaye njariñ la ma gis mu du ko def sa commune ba ah monsieur le maire sax mënu ko moom mi yàlla dénk askan wi mënu ko yàlla nag mooy jegle nit dina la joxub cër te doo ko man yàlla andi ko la uuf yaa gis kii dafa uuf monsieur le uuf askan wa njariñ kese la sëñ bi ñaanal ko mu yokk man de yàlla nag yàlla saxal isi na bi te barkee la ko noonu amiin mu ne dégg na ñu yëkkati ay kàddu di ay seere ci diggante Babacar jàll mii ak liggéey ba mu ne dégg nañ ko bu baax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ñoo nga gën a santaat suñu borom bu baax baax mu ne ndax fii defar rekk moo ko fi bàyyi mu ne kon ñii nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. mu ne baaba ki baaba ki itam di taalibe boo xam ne fekk na ñu gërëm ko. mu ne fekk na it ñu rafet njort ci moom. mu ne jàpp na it ne Babacar mii du def du dox ay tànk yoo xam ne. lola loraange la ci jaami yàlla yi.